candidat yoo xam dañoo bokkoon ci jongante bi ñenn ñi dogal jàllagun ñenn ñi jàll ñu ñëpp ñu boole suñu baat te ñu ne comme que yaa fi sëñ te lépp lu ñu def lu nekkoon war nañ ko waxtaanee ak moo tax ñëw mi ngi ñëw délégation mi ngi ci ànd ak ministre Aliou Sarr ak ministre Aly Ngouille Ndiaye mii ak premier ministre Aminata Touré ak soxna Aïda Mbodj mii ak man mii di Cheikh Abdou Bara Dolly nekkoon candidat ak Cheikh Alassane Sène ak Samba Ndiaye ak bun Mouhamad Diop ak Lamine Assane Fall mi nga xam moo fi toogal Mouhamad bun Ablaye Dione ak ki nga xam mooy Cheikh Ibrahima Niang mi nga xam moo fi représenté Mamadou Diop Decroix ñii ñëpp nag fan ñeent fukki candidat ak ñett yoo xam ne ñun rek ñoo si mën a ñëw indaale ñëpp ñu jël suñu kàddu ñëpp nag tënk ko jox ko ministre ngir mu wax suñu tur di la sant bu baax Mbàkke di la ñaan yàlla sama borom yàggal fi te wéral la délégation bi Cheikh Abdou wax na ko euh, dañu fay ñëw ndax ñi ngi ci waajal élection présidentielle ci élection présidentielle bi nag mu am ci ponk bu am solo boo xam ne bii euh, nguur daf ko teg pour saytu ñi bëgg a nekk candidat euh, ci ñi bëgg nekk candidat dafa am lu ñuy wax parrainage mooy maanaam ay nit nekk ay sénégalais ñu ne bala ngaa nekk candidat gën ngaa néew ñeent fukki junni ak ñeent ak ñaari téeméer ak fanweer ak benn danañ wax ne yow bëgg na nga nekk waaye gën ngaa bari euh, juróom fukki junni ak juróom-ñett ñoom it wax ne bën nga nekk kon kenn ku nekk ci ñun nekkoon candidat joxe na maanaam lim bu toll noonu waaye liñ ci seetlu Euh, ci ñenn ñi euh, bi ñu demee yóbbu seen jumtuwaay yi nga xam ne yi ci lañu ñu war a xayma ñi leen maanaam ñi leen ne daf ci am ñoo xam ne ñi maanaam jumtuwaay bi sax xooluñ ko loolu nag toll nañ ci juróom-ñeent ci ñeneen ñi nga xam ne ñi seen jumtuwaay conseil constitutionnel xool na ko euh, daf ci am ñoo xam ne ñi ñoom jàpp nañ ne dañ leen a wàññil ay nit ba ñu mujj leen kale am ñoo xam ne également dañu ne seen nit yi ñu joxe nekkuñ ci fichier électoral bi loolu nag moo ci xaw a bari daanaka biñ ko xaymaa ñun ñëpp déjà euh, dem na ci presque lu mat juróomi téeméeri junni nit yoo xam ne war nañu wote loolu nag indi jaaxle euh, ndax am na ci ci ñun ñii euh, ñaari candidat yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ci seen bopp dañoo bokkoon ci. Euh, parrains yi defal seen bopp ñu bind leen ne yéen bokku leen ci fichier bi muy professeur Mary Teuw Niane ak professeur Mohamed Ben Diop mii ndax ñoom mi ci la bokk moom mii candidat la woon waaye bi nga ko delloo lijaasam dañ ne ko yow bokkuloo ci ñi nekk ci fichier bi loolu nag moo tax bi loolu amee ñun bi ñu dajee ñu ne nag nañu bind conseil constitutionnel wax ko ne na saytuwaat ñi nga xam ne ñi loolu moo leen tax ñu génn leen donc loolu mooy waral euh, defoon nañ le def nañ d'abord maanaam lettre ñun ñëpp signé ko waaye rax ci dolli kenn ku nekk ñun def na lettre wax lii sa problème parce que mën naa am problème yi mën naa nuróo te bokkut waaw loolu nag moo taxul aussi ci loolu aussi ñu jàppoon ne danañ ñëw ci yow wax la li nga xam ne lii mooy loolu liñ ci saytu liñ ci ñaan daal mooy ñoom ci seen bopp bëgg nañ conseil constitutionnel euh, xoolaat euh, mbir mi donc xoolaat maanaam Euh, euh, parenage bi te loolu jàpp na ne bi nga koy wax ba léegi mi ngi bëgg am ay fan te jàpp na ne du lu jafe ndax conseil constitutionnel bi muy tàmbali seet mbir mi bés bu ne mu daan seet ñeen ñaar fukki nit donc gëm nañ ne bu lii lépp bu ko doon seeti ñaari nit ñaari fan ba ñetti fan la war a doon te jàpp na ne amul benn incidence bu mu war a mën a am ci élection bii di ñëw loolu aussi bëgg nañ mu leer parce que bi ñu koy wax dañ koy waxtaan ne li ñu bëgg mooy nañu saytuwaat parrainage bi waxuñ kenn nañ jéem a toxal élection bi waaye te tey jàpp nañ ne xaj na fi donc loolu mooy kàddu gi nga xam ne gii man moom lañu ma waxoon ma ne bu ma yeggee ñëw jottale ko ñun ñëpp kenn ku nekk am na ci ñoo xam ne ñii wax nañ leen ne ñi ngeen pare ne nekkuñ ci fise bi waaye terewul jàll nañ am na ci ñoo xam ne ñii loolu moo leen tere jàll. te te loolu ba bari ay ay cas yu xaw a doy waar yoo xam ne kenn ku ci nekk rek moom. expliqué bi mu defee conseil constitutionnel lettre am préciser ko parce que peut-être am na cas yoo xam ne yi euh, ñoo ko nuróole waaye ñaari cas yi ci gën a garaaw nag mooy candidat yi ndax bala ngaa nekk candidat da ngay nekk ci fichier bi donc nga dem direction générale mën na la yaa ngi ci fichier bi nga dem déposé ci conseil constitutionnel ñu ne nekkoo ci fichier bi loolu nag day indi jaaxle ndax buñ seetlee ñi nga xam ne ñoo la concerné daanaka xaw na mat million électeurs loolu nag électeurs yooyu nag buñ ko lijjantiwul nekk ni bu ne ba ci cappaandaw ko mën na indi ay jaxaso moo tax ñu teel a artu teel a pour bëgg loolu ñu saafara ko loolu daal moo doon kàddu yi Alioune sëriñ Bachirou mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigalul sëriñ bi. ci ndigalul sëriñ bi. ak kàddoom yi ma yónni ci yéen. moom laa bëgg a jottali. jottali. donte mënuma ko cee wuutu nag. donte mënu ma ko cee wuutu nag. jéem rek. dañuy jéem rek. ci ni ñu ko waxee. ci ko waxee. ñu seet nu ko waxee nu seet nu ko waxee rek. ñu jéem ko waxe noonu. ñu jéem koo waxee noonu. wa maa ala rasuli illa al balaa. balaa. loolu nag. loolu nag. Sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne. Sëñ waxoon ne. nabiyul mursal. nabiyul mursal. ci rasulillahi la mujjee. ci rasulillahi la waaye mursal nag. waaye mursal nag. du fi jug du fi jug. ci saa ne. ci saa ndax képp koo xam ne boo waxee. ndax képp koo xam ne boo waxee. ñëpp di la dégg. ñëpp di la dégg. mursal nga ci ñi ngay waxal. mursal nga ci ñi ngay waxal. yàllante nag nga xam ko. yàllante nag nga xam ko. bay wax loo xam ne dana amal njëriñ nit ñi. bay wax loo xam ne dana amal njëriñ nit ñi. tax sëriñ bi lépp lu muy wax. moo tax sëriñ bi lépp lu wax. luy jëriñ adduna lay doon. luy jëriñ adduna lay doon. kon nag ci biir loolu. kon nag ci biir loolu. sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo nuyoo. sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo am nuyoo. ca nam gën a rafete. ca nam gën a rafete. na ko lislaam santaane. na ko lislaam santaane. loolu mooy. loolu mooy. loolu mooy. lislaam dafa santaane. lislaam dafa santaane. buñ leen nuyoo. bu buñ leen nuyoo. ngeen delloo nuyoo ba nam gën a rafete ngeen delloo nuyoo ba nam gën a rafete wala ngeen delloo leen ko. wala ngeen delloo leen ko. sëriñ bi ne ci kàddoom yi mu waxoon ci tabaski gi. sëriñ bi nee na ci kàddoom yi mu waxoon ci tabaski gi. sant ko bokki taalibe yëpp. sant ko bokki taalibe yëpp. ci seen digg ci seen digg seen bokki jullit yi ñu réew mi. seen bokki jullit yi ñu seqal réew mi. waa adduna sépp la wax sax. waa adduna sépp la wax sax. waaye nag nee na fi ñu koy tàmbalee mooy ñi dëkkal ci biir réew mi. waaye nag nee na fi ñu koy tàmbalee mooy ñi mu dëkkal ci biir réew mi. mooy kilifa diine yi. mooy kilifa yi. yim seqal réew mi. yim seqal réew mi. mu wax ne. mu wax ne. ñëpp sant na leen. ñëpp sant na leen. ndax yëg nañ. ndax yëg nañ. yég na cër bi mu jox Serigne Touba. yëg na cër bi mu jox Serigne Touba. mu sant taalibe Serigne yëpp nag. mu sant taalibe Serigne Touba yëpp nag. nee na bu ñu leen tàllalee benn loxo. nee na bu leen tàllalee benn loxo. na ngeen leen tàllal ñaari loxo. na ngeen leen tàllal ñaari loxo. kon loolu ndigal la lu Serigne bi joxe. kon loolu ndigal la lu Serigne bi joxe. kon nag Serigne bi mi wax ne. kon nag Serigne bi mi ngi wax ne. sëriñ bi nag wax ne. sëriñ bi nag wax ne. ci ci loolu rek. ci loolu rek. la leen di delloo am nuyoo. la leen di delloo am nuyoo. yéen ñi fi teew ñëpp. yéen ñi fi teew ñëpp. Euh, du mën a tudd ñëpp nag. du mën a tudd ñëpp nag. waaye bu tuddee ñenn ñi. waaye bu tuddee ñenn ñi. mu yóbbaale ñëpp. mu yóbbaale ñëpp. ndax doomu Cheikh Abdoul Mbacke Baari Touré. ndax doomu Cheikh Abdoul Mbacke da ba doomu Cheikh Abdoul Mbacke. doomam di Cheikh Abdoul Mbacke. di Cheikh Abdoul Mbacke. moom Serigne Baara Doli. moo njëkk ubbi kaddu ci seen tur. moo njëkk ubbi kaddu ci seen tur. leer na diggam ak Serigne bi. leer na diggam ak Serigne bi. ndax fii la yaroo. ndax fii la yaroo. Euh, wax na lim ci war wax. wax na lim ci war a wax. Euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye. ministre Aly Ndiaye. ñëpp xam nañ ni mu demee ci Serigne bi. ñëpp xam nañ ni mu demee ci Serigne bi. bi fi Serigne Saliou bàyyi ko. bàyyi ko. la jox boppam Serigne bi. la jox boppam Serigne bi. ñi ci des ñëpp it nag noon la demee. ñi ci des ñëpp it nag la demee. Soxna Aïda Mbodj. Soxna Aïda Mbodj. waxtu wu ne fi la dëkk. waxtu wu ne fi la dëkk. soxna Mimi Touré. soxna Mimi Touré. sëñ bi leer na lim seq ak moom. bi leer na lim seq ak moom. ñi ci des ñëpp itam nag. ñi ci des ñëpp itamit nag. damay bañ a juum ci lim bi. waaye ñëpp ak njabootam lañ. waaye ñëpp ak njabootam lañ. sëriñ bi nee na li jiitu ci kàddu yi. ndax sëriñ bi nee na li jiitu ci kàddu yi. mooy sant leen. mooy sant leen. gërëm leen gërëm leen. xamal leen ni itam. xamal leen ni itam. fii mu nekk. fii mu nekk. jotaayub Serigne Touba la. jotaayub Serigne Touba la. Serigne Touba la fi nekkal. Serigne Touba la fi nekkal. Serigne Touba mi fi nekkal nag. Serigne Touba mi fi nekkal nag. yitteem jëpp. yitteem jëpp. boromam la. boromam la. waaye ñëpp ko bokk. waaye ñëpp ko bokk. ñëpp ko mën a jëriñoo. ñëpp ko mën a jëriñoo itam. te moo ko waxaloon boppam. te moo ko waxaloon boppam. allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanafan bila darari loolu mooy yàlla suñu borom. loolu mooy yàlla suñu borom. moo ko dimbali. moo ko dimbali. mbindeef yi topp ko. mbindeef yi topp ko. muy borom njariñ lu àndut ak lor. muy borom njariñ lu àndut ak lor. mooy moo tax ngeen na ngeen xam ne. moo tax na ngeen xam ne. fii kër Serigne Touba la. fii kër Serigne Touba la. kër Serigne Touba nag. kër Serigne Touba nag. nee na ko kenn. nee na tëjalu ko kenn. ndax sëriñ bi ci boppam. ndax sëriñ bi ci boppam. buñ ko mosaan sonal. buñ ko mosaan sonal. ba ñu ko wër bëgg a tëj bunt ba ñu ko wër bëgg a bunt yi. da leen di wax ne. wa maa ana bi tardil muminina loola foofa la nekk moom ubbilut kenn ay buntam ubbilut kenn ay buntam waxoon naa fi daaw jéeg ne leen naa fi daaw jéeg ne leen sëriñ bi sëriñ bi mu fattaxatan lahumul abwaab baati arab yi kon loolu. kon loolu. mooy tëjalul kenn ay buntam. kenn ay buntam. ki doon tub jullit nag. ki doon tub jullit nag. mi ngi mi ngi mi ngi sàmmonteeg. mi ngi sàmmonteeg. ak mbindeef yi ko yàlla bindee. ak mbindeef yi ko yàlla bindee. waraay fi kulli xalqin xaqa man xalaqa. kon foofu rek la nekk. kon foofu rek la nekk. kon fii mu nekk. kon fii mu nekk. sëñ Tuubaa la fi nekk. sëñ nekkal. na ngeen xam nag ne. na xam nag ne. sant na leen. sant na leen. ndax bi ngeen jaaxlee. ndax bi ngeen jaaxlee. xam ne amuleen leen moom. xam ne amu leen ku dul moom. seen xel dajut ku dul moom. seen xel dajut ku moom. ngeen jëm si ci ngeen jëm si fi moom. mi ngi leen di ñaanal. mi ngi leen di ñaanal. ci barkeb Serigne Touba. ci barkeb Serigne Touba. suñ borom bañ a tas seen yaakaar. borom bañ tas seen yaakaar. te Serigne Saliou daana wax. te Serigne daana wax naan. yaakaar ju tas. yaakaar ju tas. miinut kër Serigne Touba. kër Serigne Touba. li ci des nag. li ci des nag. mooy ci gannaaw. mooy ci gannaaw. yónnee woon na ma yónnee woon na ma ay kaddu ma wax ko adduna sépp dégg nañ ko. ma wax ko adduna sépp dégg nañ ko. am ci lenn ci lu desee leer ci nit ñi. am ci lenn lu desee leer ci nit ñi. mooy jàpp ne sëriñ bi dafa wax ne. mooy jàpp ne sëriñ bi dafa wax ne. ñii politique bu fi kenn ñëwati. ñii politique bu fi kenn ñëwati. loolu mosii su ko waxee noonu. loolu mosii su ko waxee noonu. lim bañoon. lim bañoon. mooy ku ko ci jéem a dugal. mooy ku ko ci jéem a dugal. ndax dafa jaboote ñëpp. ndax dafa jaboote ñëpp. ndax ñii. ndax ñii. ay kóllëreem lañ. ay kóllëreem lañ. mu seq ak ñoom lu bëri. mu seq ak ñoom lu bëri. ñii di ak njabootam. ñii di ak njabootam. sa njaboot nag. sa njaboot nag. bu ñëpp bëggee lenn. bu ñëpp bëggee lenn. la ci gën. la ci gën. mooy bàyyi ku ko ci yàlla jox rek. mooy bàyyi ku ko ci yàlla jox rek. nga xam ne moo gën. ndax li ci tënk bu gàtt rek. ndax li ci tënk bu gàtt rek. mooy candidat yi ñuy wax. mooy candidat yi wax. ñaar fukki candidat ak benn. ñaar fukki candidat yeeg benn. boo ko doon xool. boo ko doon xool. fukk ak ñaar yi. fukk ñaar yi. lu wóor ay taalibe yu wóor la ñoom. lu wóor ay taalibe yu wóor lañ. kon lu ëpp genn wàll gi ay murit lañ. kon lu ëpp murit it. ak njabootam lañ ndax Serigne Touba ñëpp la jaboote. kon nag ngeen xamee ko noonu. dégg na ko dégg na li ngeen wax. dégg na li ngeen nag. Serigne Touba. Serigne ña fa daa ñëw ñëpp. ña fa daa ñëw ñëpp. minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu leen indi woon. ñi addinaa leen indi li ci des nag. li ci des nag. mooy yi ngeen fi wax. mooy yi ngeen fi wax. ndegam yéen yéen a seq wàllug adduna bi. yéen yéen a seq wàllug adduna bi. ndax yi wax yëpp. ndax li ngeen ci wax yëpp. dégg na ko dégg na ko. waaye mënu cee dugg. waaye mënu cee dugg. ndax moom lépp loo xam ne responsabilité la. ndax lépp moom lépp loo xam ne responsabilité am la. lu mu war a def lu mu war mooy daw responsabilité. mooy daw sëriñ bi moom du ko def. ku ne ku ne na ne. sëriñ bi lépp lu mën a wax ci biirum néeg. sëriñ bi lépp lu mën a wax ci biirum néeg. mën na ko wax ci na ko wax ci mpénc. noonu la ko yàlla def. noonu la ko yàlla def. li li ci li li ci mat a daw nag. li ci mat a daw nag. mooy li rasulillahi li rasulillahi waxoon. suñ borom waxoon ko ci alxuraan. suñ borom waxoon ko ci alxuraan. diggam ak saxaaba yi. diggam ak saxaaba yi. ñun taalibe yi it. ñun taalibe yi it. loolu waruñoo dal suñ digg ak moom. loolu waruñoo dal suñ digg ak moom. wa minhum man yaqulu zandi wala mooy jox ma ndigal. mooy jox ma ndigal. te digal ma ci li ma bëgg. te ma ci li ma bëgg. loolu nag ñëpp noonu la ñuy def. loolu lépp ñëpp noonu la ñuy def. waaye sëriñ bi waaye sëriñ bi. ku ne xam na ne. ku ne xam na ne. ba mu nekkagul sëriñ Tuubaa. ba mu nekkagul sëriñ Tuubaa. looloo nekkoon yitteem. looloo nekkoon yitteem. bi mu nekkee sëriñ Tuubaa bi mu nekkee sëriñ Tuubaa itam. lépp lu mu war a defar. lépp lu mu war a defar. xaaru ci kenn. xaaru ci kenn. loolu nag li ko waral. loolu nag li ko waral. mooy ñaari mbir. mooy ñaari mbir. sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon ne. sëriñ Tuubaa dafa ñaanoon ne. wal tudd xileel musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bil haadil wa fii suñ borom waxaa ci alxuraan ne fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum ragal leen yàlla ta ngeen di defar diggante yi. suñ borom dafa wax na ragal leen yàlla te ngeen di defal diggante yi. moo tax bi lépp lu mën. moo tax sëriñ bi lépp lu mën. ci defarub diggante. ci defarub diggante. mi ngi koy def mi ngi koy def. donde ko nag. donde ko nag. ci way juróom wu teddam. ci way juróom wu teddam wa. Cheikh Mouhamadul Bachir. nga xam ne boo demee ci marché am nga xam ne boo demee ci marché am ba. yaa ngi dégg. ka ko doon marché di yaa ngi dégg ka ko doon marché di wax ne. ku deeti def islaaha fil bayni. deeti def islaaha fil mu dib liggéeyam. mu dib liggéeyam. faw doon may. faw doon may ni. sëriñ bi foofu rek la nekk. sëriñ bi foofu rek la nekk. kon nag dégg dégg na ko bu baax. kon nag dégg na ko bu baax. li ci des nag. yéen ñi ko seq. yéen ñi ko seq. mu jëm ci wàllug adduna. mu jëm koy bàyyeewaat yéen. da ngeen waxtaane ko ci seen biir. lu ca dal seenum xel rek. ak lu leen ci jubu rek. mu ñaanal leen yàlla defal leen ci tawféex. asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëriñ bi na. mi ngi ci dolliwaat sant ngi ci dolliwaat sant leen bu baax. gërëm leen. gërëm leen. ci seen taxawaay ci réew mi. ci seen taxawaay ci réew mi. ndax li ngeen di def lépp. ndax li ngeen di def lépp. réew mi ngeen koy defal. réew mi ngeen koy defal. defal leen ko seen bopp. defal leen ko seen bopp. yaakaar ji ngeen am ba ñëw fii itam. yaakaar ji ngeen am ba ñëw fii xam na ni mu toll ci moom. xam na ni mu toll ci kon sant na leen ci bu baax. kon sant na leen ci bu baax. gërëm na leen ci bu baax. na leen ci bu baax. kon li ci nag. ak ñaan la koy mottalee. ak ñaan mu toog kat. te fii mu toog kat. li ma wax léegi rek. li ma wax léegi rek. képp ku fi ñëw ngir yaakaar. képp ku fi ñëw ngir yaakaar. incha allah. incha allah. yàlla du tas sa yaakaar. jërë ngeen def